Tay alxames fukki fan ak ñeen ci wéru décembre yemboog bes bi nga xamné Ousmane Sonko amna ci li mu doon sakku gannaaw bi juge bu tribunal d'instance bu Dakar annulé radiation si liste électorale yi té sax talata bi wésu tribunal bu Dakar amalon na waxtaan bu jëm si dugal wala ki di Ousmane Sonko si liste électorale yi mëna tax mu bok si candidat yi jongante ci élection présidentielle yu 25 février 2024 dogal bi juge bu tribunal d'instance bu Dakar joxe di firndeel décision bu tribunal d'instance bu Ziguinchor joxoon Ousmane Sonko ci weeru octobre ngir mu mën a bokk ci liste électorale yi te Cour suprême mujje woon ko kase le 17 novembre 2023 tey alxames fukki fan ak ñeent ci weeru décembre yemboog bés bi nga xam ne Ousmane Sonko am na si li mu doon sàkku gannaaw bi juge bu tribunal d'instance bu Dakar annulé radiation si liste électorale yi te sax talaata bi weesu tribunal bu Dakar amaloon na waxtaan bu jëm si dugal wala génnee kii di Ousmane Sonko si liste électorale yi mën a tax mu bokk si candidat yi jongante ci élection présidentielle du 25 février 2024 dogal bi juge bu tribunal d'instance bu Dakar joxe di firndeel décision bi décision bu tribunal d'instance bu Sor joxone Ousmane Sonko ci octobre ngir mu mën bok ci liste électorale yi te Cour suprême mujjé won ko kase le 17 novembre 2023. bi gën a simple rek bi gën sample. simple. fichier électoral bi nit mënatu cee dugg waaw délai délai tëj bi dafa jeex maanaam nit moo mënatul dugg ci fichier bi tant que élection yi rombul beneen élection yi di ñëw ñu ubbiwaat fichier bi nit mën a binduwaat loolu mooy li gën a simple c'est que ñoom dañu xamul ñaar affaire procédure pénale bi ah jotewul dara ak code électoral bi code électoral ci yoon bi mu nekk nit mënu ko changer waaw dañuy ubbi liste di bindu dañuy tëj. ministre de la justice yónnee na jugement définitif ministère de l' intérieur définitif laa wax mooy ku ñu àtte contumace définitif amul recours jo am na décision boobu ci loxoom jox ko ministre de l' intérieur daaf ñu rocc nit kooku kooku bu ko amee nekk rocc ko keneen mënu ko ci dugalaat. loolu mooy dëgg léegi nag euh, justice bi ñoom ñu ngi seen rôle ñi ngi def la ñu war a def mais administration aussi ñu ngi def la ñu war a def administration dañu am pouvoir l' <laughs> administration gañ dañu am pouvoir di doxal léegi nag euh, ñoom bàyyi leen foofu bàyyi leen foofu parce que lii day dem ba de rek door ñu waxaat yi gis nga suñu passé le vingt six kenn dootul waxaat ci dossier yi parce que nga am ndam ak ñàkk am ndam amatul njëriñ bi gën a simple rek bi gën a simple fichier électoral bi nit mënatu cee dugg waaw délai délai tëj bi dafa jeex maanaam nit moo mënatul dugg ci fichier bi tant que élection yi rombul beneen élection yi di ñëw ñu ubbiwaat fichier bi nit mën a binduwaat loolu mooy li gën a simple c'est que ñoom xamul ñaar affaire procédure pénale bi ah jotewul dara ak code électoral bi code électoral ci yoon bi mu nekk nit mënu ko changer waaw dañuy ubbi liste di bindu dañuy tëj ministre la justice yónnee na jugement définitif. ministère de l' intérieur définitif laa wax mooy ku ñu àtte contumace définitif amul recours jo am na décision boobu ci loxoom jox ko ministre de l' intérieur daaf ñu rocc nit kooku kooku bu ko amee warul nekk rocc ko keneen mënu ko ci dugalaat loolu mooy dëgg léegi nag euh, justice bi ñoom ñu ngi seen rôle ñu ngi def la ñu war a def mais administration aussi ñi ngi def la ñu war a def administration dañu am pouvoir l' <laughs> administration gaj dañu am pouvoir di doxal. léegi nag euh, euh, ñoom bàyyi leen foofu bàyyi leen foofu parce que lii day dem ba de rek door ñu waxaat yi gis nga suñu passé le vingt six kenn dootul waxaat ci dossier yi parce que nga am ndam ak ñàkk am ndam amatul njariñ